waaw kookoy Calimber Calimber rek noonu si ginnaaw moo doon bu rek booy ma doon. saa ci kanam dina leer. <laughs> amul différence amul dara kii mbëru mbapat la kii mbëru arène la kii di mbin gaay gi wala wala booy Petersen mbëru mbapat la waaye kee di cargo mbëru arène la ndax soo xoolee gis nga dem nañ la dara booy Petersen la at cargo bu Malika. non non booy Petersen moo ñu wan ginnaaw. cargo bu Malika lañ jàkkaar lool. ndeysaan ñaari xale yaa noo si géew gi. booy Petersen juróom yaa nga ne mbin gay ki at kan daba ndeysaan eh dóoral ma dóor dóor jël na ko mbal na tànk ba fàq na ko fàq booy Petersen fàq na ko dem. Boy Petersen fàq na ko mu dem ndeysaan Cargo am na avertissement benn ndeysaan ñu ngi dem latéral ñoom ñaar ñu ngi dem latéral ñoom ñaar ah est-ce que nekkul seen i tegtal xam lamb lépp tegtal la lamb lépp tegtal la Boy Petersen wala nga ne Mbin Gay at Cargo bu Malika ñaari xale yaa ngi si géew gi ngi def placement de saan xam nga ne moom moo ngoom moo waroon rek Mbayang moom moo daa amul oto yee ko jàpp mu ngi gànjaay yooru na daan na ko mbot wala eh waay Boy Petersen daan wala lu arbitre wax ñu xool lu arbitre wax ñu xool arbitre lu wax Boy Pétasser daan na ko wala nga ne Mbine Gueye daan na ko kon 100 pour baa ngi dem de 100 pour cent simple mbooloo am na ko la daan na. waaw waaw daan waaj